mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen doon nuyoo tey nag ñu ngi toog ak ak ji euh, Jim Mouhamed Lo di muqaddam ci kër Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima euh, ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa euh, ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi siyaara ñëpp góor ak jigéen mag ndaw képp ku yow ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ma nag tey ak képp kuy xormaan nit yàlla yi ñu ngi lay wax salaamaaleykum wa rahmatullah imaam tey ñu fas yéene waxtaanee euh, Cheikh al Islam El Hadj euh, fas yéene ko jox taalibe rek mu yóbbalu gàmmu ba Niassène euh, suñ la doon laaj bàyyi fan la juddu. waaw alhamdulilahi rabbil alamin ni ma leen ko waxoon nag taalibe la yaa ngi ma wax muqaddam la waaye taalibe laa si kër Cheikh Ibrahim waaye samay mbir. xam-xam bi bëriwut moo tax nag ma am système bu bees boo xam ne moom laay jëfandikoo eh, léegi pour nga wax ak man damay dal di dellu rek ci mbind ma tiim ko eh, bu ko defee rek eh, yàlla dina ñuy suturaal waaw sa laaj googu Baye mu ngi juddoo dëkk bu ñu wax Taïba Niassène ba ñaseen googu foofu la juddoo eh, mun ngi fa juddu ci weer wii nga xam ne ci lañ ne tey muy weeru rajab weeru rajab la juddu waaye boo koy xool eh, rajabul fard lañ koy wax muy bésu alxames ci la juddu ko moom teeloon teel teel nañ ko teeru alxames mooy bés bi nga xam ne bu ci bàyyi ko dem ci ajuma lañ fa am dafa bëri xam nga ajuma ci nga xam ajuma ci la bés pencay taxaw xamal nga loolu de ajuma ci boppam xam na ci waxtu xam ne loo ci ñaan yàlla jox la ko loolu la doon teel bàyyi loolu la ñëwaale moom tam na cëpp rek jàkkaarleeg jaww ji yëpp leer biddi yëpp fendi mu juddu bésu alxames ci la juddu gannaaw tàkkusaan xoolal gën naa doyati waat di tàkkusaan mooy wala asri innal insana la fi xusrin illa lasina amanu wa amilo saat xasr nag boo demee ci tafsiru quran yi ñu ngi koy firee julli juma waxtu heure juma boo buggee xóotal ba ko gën a nga ne déedéet wala asri gëñ naa ci juddu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak juddu Muhammad bi jege na ak juddu baay bu bon ñu ne déedéet asri gëñ naa ci jamono mbokk mi mbokk mu tedd mi yow mi nga xam ne yaa yor microphone bi e, di laaj ci jëmm ju mel nii nga am sa sell ak yore e, seen boo xam ne bi doy na rek ñu ne Dakar TV defe na Dakar Net kon ndépp a net <laughs> mu net tolloo jamono internet nga du ñëw ci ki nga xam ne moom mooy seexu net mooy bàyyi ajuma bés la boo xam ne lu nee ci ne doy na rek ci ajuma boo jullee juma ajuma yàlla jéggal na la sa bàkkaar ba bésu ajuma del si bu fekkee yaa ngi teet bàkkaar yu mag yi doy na rek ci barke boobu soo jullee waxtu juróom waxtu woo julli rek yàlla jéggal na la waxtu ba ba ngay def bu julliwaat beneen waxtu bu fekkee yaa ngi tel bakk ci lu ñu yàlla may ci lislaam bi kon jëmm jooju bés boobu la jullu ci heure boobu la jullu ci tàkkusaan ci weeru rajab rajabul fard mu ñëw nekk fardu jaame xam nga nag léeg-léeg eh, mbooloo léeg-léeg mbooloo dana nekk kenn waaye léeg-léeg kenn dana nekk mbooloo kenn ki nekk mbooloo mooy ku nga xam ne mbooloo ma lu ñu bëri bëri lu ca waaye soxla de bu wéetee yow fajal la ko defal la ko kooku mooy Mawlaay Cheikh Ibrahim kooku mooy saahibul fayda kooku mooy xutbu boo xam ne ci ñu jamonoom nag mu nekk rais président président boo ko indi nag ci arab da ngay rotal liif ga buy ci bàyyi raisan waaw ci teeba Tayba googu nag am na ñuy wax ne ci taarix maalaaji sancut ko xam nga loolu du xej ci émission waaye ñun li ñu ci yitteel mooy fa bàyyi juddoo moom maalaaji moo sos Tayba ga maam ba bàyyi juddoo maalaaji moo ko sos Tayba ak gi it jëmmi bàyyi ji moo fa bu doon bu yooyu ñuy def ci mbedd foo foo gëstu fu mu ne ci kaw foto Baye ngay gis loolu mooy Taïba léegi Taïba googu la Baye wax ne ku jóg ñëw fa ku jóg ñëw Taïba boo ñëwee rek sa aajo faju na Taïba googu la juddoo war na laa doy rek ci ngeneelal ngeneelu Taïba ñu ngi ko dippeeg Taïbatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xam nga Madinatul Munawwara tuddoon madinatu munawwara mu ngi tuddoon yastrib waaw waaye bokk na ci turam yi kasratul asma nag tadullu ala sharafil musamma maanaa bëri tur ñu ne Mouhamed Lo donte man jekkuma ci naa ko wax ci baay ñu ne alhaaji ibrahima ñas ibnu alhaaji abdoulaye xam nga rek garaat bi mu ngi koy ñu ne bu xutbu asrihi mooy bu jamonoom ñu ne mooy mahalu nasarillahi fi xalqihi moom rek la yàlla rus ci jaami xam nga ku yàlla rus boo gisee wali yu genn mënuñoo nekk genn kër yàlla jaamam yi dañoo bëri te kenn ku ne dafa da nga am li ñoo besoin loo soxla boo ko la nga soxla bu jotee nag foog ngay seeti ka nga gëm ka nga nag bu fekkee na mu ngi bokk ci ñi nga xam ne yàlla jox na leen ñu nekk maalu nasarillahi fi xalqi yi yàlla leen waxal soxla bi mu dégg ci nopp mu dugg ci noppam kii juddu kii ma bëgg a waxtaanee tey xam naa bu ñu demee ba ci kanam danaa dugg ci xasaayis yu mel noonu doy na rek ci tedd nga ci tur woowu nga xam ne ka juddoo rek mooy imaamul xalil si shaanil azim al jalil doy war na laa doy teraanga rek ne dafa judd am mbir mu mag nekk nit ku koy nekk nit ku am xam-xam nekk nit koo xam ne ëllëg lii islam tax a jóg l'islam du juróomi ponk ashadu an laa ilaha illallah wa mu jàngal la baatu seede ba pare génneel la ci nooy liggéeyee laa ilaha illallah ba xëy fogg sa den ma yàlla te dara du ca deñ ah waaw dañ ñoo xam na waaw loolu moom dañ ci ñëw waaye foog foog ñu mu laalaale ko mu ngi sosu nag ci pegg penku di penk ci wolofu Saalum sa penk mooy ci penku way juram bu tedd wa ñu ko alaaji alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu taala dafa judd rek xam fegu bëri yu bëri yu muy bañ bëri yu bëri yu muy bañ di borom diine dafa juddu rek nekk ku fegu di borom diine da ko ragal yàlla di am nekk mbañ rus di koo xam ne dafa defaru saahir defaru ci baatin di borom teggiin di ku sàmm mu ngi jàngee alxuraan xam naa danga mu ko laaj. bi maanaam moom fan la jàngee. mu ngi jàngee ci baayam El Hadj ku ko dalal baa siin mi mara bu fekkee noonu la ko ko dalalee moom te xam naa noonu la koy dalalee la bi mu ko jàngalee dalee alquran mu jàng ba mokkal alquran mokkal gu rafet mu ngi mokkalee ci riwaayatu warsh an naafia boobu xale bu góor la boo xam ne benn xeetu loolu la ñu wax yaafeex yaafeex xam naa ne ñemu ñoo waxaat mi mokkal alquran waaye boobu moom ay juróom-ñaari at ñi muñ ko ci wax juróom-ñetti at nañ ko kii rek <laughs> fi ni ñi mokkalee rek nañ wax loolu waaye booba yeggagul foofu mokkal ko mokkal bu rafet mokal boobu moo continuer giir ak dundam ba bés bu ne bu xëyee dana ko jàng benn yoon ci xool ko nii ci këyit ndax lii sunna la xool téere dana ko xool bu guddee mu tëri ko bi mu jàngee alxuraan ba pare maam alaaji gis ne suma doom bii daal mu gis si moom li ñu jaaba na najaaba mooy set wecc borom xel mu dal borom setantal koo xam ne boo ko fekkoon muy fo te mosuda fo sax fo ma beneen model lay doon te mosutee jaar nag ma alaaji bi mu seetloo lool nag la ko ne xoo ko ko ci néeg ne ko li ma la yoo xam naa da nga ko xam yoo xamut foo mën da yegg ci yàlla xamut foo mën da yegg ci xam-xam mu dal boobu nag ni ko arabaay wax eh, mel ni bu buggee dugg ci ndox nooy def da ngay wag sa mbubb pour bu mu mu ne ko wagal sa mbubb mu wag mbubb mu dugg ak moom nag ci xeetu xam-xam xam yi ma lay wax nag mooy rasmiya xam nga xam na xam-xam yoo xam ne ñëpp ko xam Sénégal buñ ne Risaala buñ ne grand-mère ba Alfiya ibnu Malik buñ ne ajuróoma buñ ne Mursid euh, buñ ne euh, téere buñ ñu wax ci yooyu rek dafay nekk ma rasmiya bu xam yooyu moom da ko gaaw a almantuq minha ya ñuy tudd mu xam tur ak yi nga xam ne mafhuma la dañ koy dégg te doo ko gis xam nga am na téere yu ñu dul moom la ko ma rakkam ja waxoon alaaji moo séen ormal naa ko lool bëgg naa ko lool mu noon bàyyi bu doon téere li ñu bind ci téere rek eh, rawo ma ci waaye baay moom moo raw ku moom moom it xam naa gannaaw gi sax wax na lu xaw a dëgëral na li waxoon waaye loolu la nga ca war a déggee rek mooy na moom it am na xam-xam mu ne ko li ci diggante mbind yi ci nga ma rawee maalaaji moo ko jàngal li ñuy bind ak li ñu dul bind ba mu jëriñu commencé jëriñe commencé jëriñe mu daldi jot nag maam alaaji moo njëkk a jot yaakaaram ci baay ne man de li ma doon yaakaar suma àdduna yëpp yàlla na ma ko defal ci sama doom ji ñuy wax Ibrahima mu géeju nag mu géeju ci xam-xam mu tafanun ci mooy tafanun mooy xeetu xam-xam boo ko rek bu ko maala am dem na ba nga xam ne yemul ci li ko maala ji jàngal mais téere boo ko indil mu jàngal la ko dem na ba nga xam ne fànn boo ko waxee taalif na ca ndax mujj na taalif juróom-ñaar fukki téere ak juróom ci yiñ gis xam naa ne am na yiñ gisagut euh, ma mu dalli làq euh, bu gaa yi daggee di def concours ci daw dafa am lu ñuy teg jaay bu ñuy teg ne ku raw ci prix bu ñu lay jox ci jamonoom moo jiitu woon ñëpp ba jël prix ma ci diir bu gàtt nag ci la jàngee ba dajal xam-xam yàlla keroon nag la ko yàlla samp mu nekk rahmatan lil ibaad di yërmande jaam yi maa ngi ci bàyyi kon ñun foofu lañ lay laajee soo ñu doon wax kañ tey kan mooy cheikh al waaw li ma lay wax rek mooy la baay la yaay ja waxoon bi mu demee ci noonu ba siiw nag ci xam-xamam yàlla samp ko mu nekk yërmande jaami moom dafa doon yonent bi daa iman moo tax mu ne isa saara xayru naas surtout waraahu wéy naa la yow man fan ma siru fu yonent bi teg tànk bëgg naa ba teg sama tànk wala teg naa fa sama tànk mu continuer ak baayam ci fawaayid yi mooy njëriñ yi ci àdduna ak ci secret yi yi nga lasraar mooy suñ gu wow gi bàyyi danaan wax ne moytu leen lasraar ci siin bu tooy bi mooy asraar muy charru hay min charri ma xalaq wa min charri nafasatin fi loxat waaye siru bi mu jàngee siru moom ba pare xam nga jamono bi nit ñi dañ la jàngal secret leen la nga ne limba ndàngam limba ndàngam waaye noo ko jokkalantee bu fekkoon ne lu war a tabax pom la noo ciy defee ba pom bi taxaw ba nit ñi man ciy jaar oto yi man ciy daar te du daanu sillaat boobu ma alaaji moo ko jàngal ne ko nag kaay secret basma la mënoo koo jëfandikoo mukk lu nga jël nangam ak nangam yokk ko def ko loolu seen mbir bopp la di nga secret yaa yokk yow mën naa ko mënoo ko liggéey lu nangam dafa am silla ak mawsuul lii nii tey nga nga nga jubale ma nii nuñ ko wax du microphone lu muy def nii day jël ay wax lan mooy si nga xanaa si principe yi fi jaar yëpp pour mu am courant bi fil bi yow mi ko téye sa loxo man mi jàkkaarle moom di wax sillaar yooyu maam bàyyam moo ko jàngal si <laughs> secret moo tax moo ko gënoon a xam ñëpp moo tax gars yi boo déggee ñu naan wayndare bàyyi bàyyi dem na ba amatul wayndare ndax moom ci boppam jëmmam moo doon wayndare la ko bu Diouf waxoon loolu cinéma ba ñu lay ndege ko xoolal ci jaww ji waaye du doon borom lasaraar ba ñuy xaar ci moom muy ñoo jox secret ci lasaraar mais moom moo doon secret <laughs> bu jëmm ji rek du mu dem nag ba siiw ca lool ndëggu tànk ba dëgër ca lool gars yi di daw côté bu ne di ñëw ci moom cil secret yeeg siikar yeeg ba ñu bëri amee ci moom fatu ubbeeku lool xam xam-xam yoo xam nag baayam xamu ko ko dama laaj ko koo xamal bi kulli shay'in alim ki nga xam ne moo xam lu ne ji nga boo demee ci huwa lawalul laaxiru zaahiru baatin lu ca tegu wa huwa bi kulli shay'in alim kooku moo xamal baay nag nga doog a ñoog man ne ci li ma laajoon léegi ne baay waaw kan mooy baay mooy xut bi samaan boobu ma doon wax mooy ka nga xam ne moom la sëñ Aliou doon wax ca lam wax ca moom ci lu gàtt mu ne cheikh la boo xam ne mboolee martaba cheikh cheikh bu ne martabaam moom la bàyyi jël boole ko bésam bi mi maraati bi moom kenn da bëgg a xam yàlla demal ci moom da ngaa bëgg a xam xasaka ak ni mu tëddee demal ci moom dala ci taalif nag du la ju ebal nag ci beneen téere moo la ci ay taalifal da ngaa bëgg xam ni ñu jullee ni yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam daan jullee moo tax mu fekk baayam daan yor loxo moom mu ñëw xaj bi ko gars yi waxee mu ne ah man yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam li muy baax baax du suma du du suma yàlla man yàlla mooy suma borom man yonent bi du suma borom kon suma bàyyi lu mu baax baax ah nag suma kii man yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam travers nga bëgg a xam ah, diine julli mu wax la julli l'islam ñett rek moo ko mooy islaam imaan ihsan benn boo ci soxla demal mu defal la ci ay téere kooku muy seex bu jami maraati bi ngay jëmm joo xam ne dangaa taxaw xam lu ne waaye mu des mu nga mel ni tey robinet bi nga ñëw branché lépp ba pare waaye sene kii bi Sénégal nu ko waxeete SD la moom ñëwaguñ ba ñoom foog ñu foog la ndox mi doog a ñëw moom kum dajee rek bu la branché sa ndox day ñëw buy courant ba day ñëw <laughs> loolu nag mu ngi bokkoon ci secret bi ñuy wax sillaatul asrar doo dégg ku la ko waxaat Sénégal luy sillaatul asrar mooy jokkale euh, njëriñ yi ci ci asrar la koy jokkale ñu ne alaa jim la ñu ne mën naa wax ci bisimilah rahman waaye ndax bu ma ca waxee ba pare ndax mën naa laa jox point ya nga xam ne foo ko boo bësee contact mu tàkk ak boo bësee mu fay kooku ba la ci sëñ Aliou wax mu ne kooku moo doon làmmeñu jamanoom mooy leeru jamanoom mooy wën na siij wax dahu maanaam moom wëñ yi ko yàlla ràbbee nee na dootul amaat na siij boo demee ci ràbbkat bi ki sànni ni wëñ waaw di dugalante wëñ waaye moom yàlla moom kenn moo yàllaa bind ñëpp waaye moom ba mu koy defal na si jamono di ko ràbb ci la ràbbaale naxu grammaire ci la ràbbaale secret ci la làbbaale mokkal alquran ba mu naan wal tajalaan yëf sa kitaabakal karim karamati ilaa liqaakal azim